est-ce que tabaski bi metti ci ñun. mais là on parle de salaire. Sénégal man fa lay waxe Sénégal 5 yaa ngi jot sa salaire num waré nak nag nak. il faut pas ngay il faut pas il faut pas que moom Madiambal Diagne il faut pas que moom Madiambal Diagne mu jël ben affaire. ñu suñu këyit ñëw ben affaire diko diko diko diko diko diko généraliser. ci la presse Sénégal 5. euh Sénégal 5. sëñ bi yow ya wax ci euh, Sénégal 5. man nekkuma ci Sénégal 5 Tafa Tafa ñëw ñu dem. Sénégal 5 seen këyit ñëwagul concrètement afaan nak

Madame Diagne si vous avez une affaire personnelle vous presse ko. c'est une trentaine de presse bu mu doon dund ci ci Macky Sall ñun ñi ci ay c'est une trentaine de presse qui sont concernées par cette affaire. c'est une trentaine de Macky Sall muy dund ci état ma mom moom Diagne bu muy dund ci état ci Macky Sall ñu ko fune muy wax ñu jox lu une yeneen presse yo xamantene bokku ñu won ci régime Macky Sall ñun doon dund nakar c'est comme ça chacun son chacun son tour c'est le coiffeur du loolu la wax. Hmm. mais loolu la ñuy wax yow bi ngay dund ci nguur nguur gi neex lool kenn déggu la man foofu interpeller euh, interpeller interpeller euh, d'ailleurs la presse Madiambal Diagne ba muy nekk ci Macky Sall muy neex dégguñu ko muy wax lii de neen loolu mosoon nañu ko yónnee si nguuru dama ne dégguñu ko woon muy wax nii léegi mosoon nañu ko yónnee à à à c'est à hauteur de treize millions mais il s'est arrangé avec Waly Diouf Bodian bi nga xam ne dama ne dama ne le directeur dama ne sport te itam nee na waa Infos Domaines waa Sonko yi su doon titre loolu lay wax waa Sonko neexu leen da nga doon envoyé directement li nga xam ne que moo di benn ko fisc mu war a fay dama ne Madiambal Diagne ba muy dund ci état ci Macky Sall kenn déggul ay zaari kaddu yu mel nii donc tey bu mu métti yow ngay yuuxu alors c'est clair da ngay da ngay nite ba pare nga nekk gor gis nga gor yi fi nekk ñu nekk ay patron de presse ñoo xamante ne ànduñu ak nguur day métti ñuy muñ day métti ñuy muñ mm. ñuy fay seen impôt mm. day métti ñuy muñ Macky Sall tegal na leen fii lu ne fii ay patron de presse am na ñoo xamante ne sax dañ doon ket di def ay fonds de euh, euh, ay ay ay ay de mm. ay levée de fonds pour ñu mën a fay seen salaire wala fajari vécu ko fii sénégalais di si ci mensualité bi Hein? est-ce que nous avons fay impôt. alors dañu fay cet impôt. c'est clair ñi no wal dafa wara fay impôt bu melni dañu doon fay problème salaire lañu amone parce que dañu sénégalais taxaw di jappalé bobu ma jambal jañ mu ngi ñoon dund ci lu ci banéxam la ci banéxam la alors tay commencé na métier parce que eh, mentoram dem na muy commencé yu di jël affaire personnelle di ko généraliser ci presse bi pour presse bi wax ci. mais c'est une ñun presse ñun Sénégal 5 TV tay la ñuy gëj a wax ci affaire Madiambal Diagne na dem fay na dem fay impôt comme tout le monde na dem fay impôt comme tout le monde wa ila mu xol naka lay arranger. comme mom ci arrangement la dëkk néna mom moom am ni mu arranger ko comme mom ci arrangement la dëkk mu xol nu muy arranger ba fay mën ko.

et euh, tant d'autres et d'autres alors ñu jàpp ni itam mm, euh, quatrième vague B, wala kon cinquième vague B Diomaye encore une fois a euh, installé justement ces ces ces ces alliés de taille avant. alors damay njëkkee féliciter d'abord Sambou Biagi grand la bon, xamante ne xamee naa Nous naa ko nii mës nañu bokk au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio ñu nekk ci tribune de presse. Mm. et aussi bokkoon nañu ci ay yeneen ay de la presse Mom Sambou Biagi maa ngi koy félicité ci nomination bi grand bu baax la sama grand la boo xamante ne xamoo xam ko nii donc su ma ñëwee ci les nominations euh, c'est normal nomination ça conseil des ministres bu ne day am nomination même si la priorité c'est pas les nominations wax naa la ko fii nee naa la nomination c'est le second plan maintenant li tax dëgg dëgg dëgg ñu def conseil des ministres nekkul nomination mais pour jublu ci les les questions la question essentielle euh, euh, des des comment les priorités des sénégalais parce que yow wax nga ko fi ñu ñu tabaski day metti tabaski bi nii dafa wara metti mais tabaski bii nii dafay metti ci ñun ñep ci tous les salariés parce que dëgg nañu fi demb xibaar bu ñuy joxe ci salaire bi mooy daanaka salaire bi du taxaw boko jëlé rek dem boko vous tay tay tay suba bu journaliste yi fi ngay. fi ngay fi ngay fi ngay signé ak fi ngay nga. fi ngay ak fi ngay bi salaire. Hmm. la ko fi jox la de Robert Kiyosaki qui disait que képp ku yaakaar salaire fin 10 mois moy manam on te considère comme tu es une personne pauvre. Hmm. parce que salaire du taxaw donc wax naa la ba jox la exemple boobu maintenant ci les nomination la dama ne nguur bu fi ñëw c'est normal mu ànd ak ak ay nitam c'est personne digne de confiance loolu mooy nguur donc nguur du xeex ba gagné nga ne da ngay bàyyi say nit fi di dem jëli ay yeneen nit c'est impossible donc ñu yaakaar ne ni que ñoom. Mais enfin... Non, non, non, soyons sérieux. Ah. C'est-à-dire qu'il faut, il faut qu'on s'inquiète un langage de vérité. Mais au gouverne avec des compétences, mais on gouverne avec des compétences. Mané, l'oï compétences. L'oï compétences. doo bàyyi ki nga andal démb ki nga àndal tes amis d'hier nga ne da ngay dem jëli ay nit yi nga xamul régime doxewul noonu foo ngeen xamul loolu li ngeen ni wooyee réalité du pouvoir ci beneen côté bi wooyee leen ko réalité du pouvoir dans la nomination man loolu laa gëm mais ñoom cas bu fekkee benn affaire bu ñuy critiquer Ousmane Sonko wala Diomaye ñu ne non les réalités du pouvoir maintenant dans la nomination si ces personnes là nomment des gens les gens ne parlent pas des réalités du pouvoir dañuy ne non yéen a ñu appel à candidature yéen a ñu ne D'accord, d' accord loolu la wax dañu ne certains postes ba léegi postes yi jeexagul. professeur Amsoso Sidibé Arfan mais c'est une bonne nomination c'est une bonne nomination au sein du conseil d'administration des hommes, des hommes, euh, comment des, des droits de l'homme. Moi, je préside le conseil Bobo. Mais c'est une bonne nomination. Hmm. Oui. Mais le professeur euh, euh, Amsatou Sou Sidibé, hmm. c'est un professeur qui voit une politique. Nous a fait candidat, mois de 2019. 2019, nous avons fait candidat non non 2012 2012 voilà on a fait candidat voilà je me rappelle. 2012. Ah, donc ku am xam-xam sens ce côté Bobo. la nomination à la tête du conseil donc euh, des droits de l'homme nomination bu Sambou Biagi, le grand là mon grand là ne à la tête de la maison de presse Babacar Touré mais mais ñu

nee naa la bokk nañ maa ko moom bokk nañu tribune euh, stade euh, Abdoulaye Abdoulaye Abdoulaye Abdoulaye de Diamniadio maa ko moom Sambou Biagui grand la bi nga xam la euh, toute une maison maison de la presse maison la enfin maison boo xam ne itam ñun presse ñëpp foofu mooy suñu tribunal presse dama ne on juge pas une personne avant de l'être man je suis pas d'accord comme na teg ay ay il a été nommé il est journaliste vous dites non en tant que maison alors la maison de la presse mënu ko gérer mën na ko gérer dañuy laaj dañuy laaj mais man dama gëm ni que grand bi ma xam grand bu dëggu la grand bu cohérent dans ses analyses sambu bu yagi bu waxee sax da ngay dalay convaincre par force am envie de ses idées la pertinence de tes de ses idées grand bo xamanté jëflante na ak mom di waxtaan ni, li ni, li ci walum sport euh, stade abla de ñu togg ni pendant des heures di waxtaan ni mais boko ko da ngay xam ni que il a mérité sa nomination.

d'après la personne que j'ai côtoyé le journaliste sportif que j'ai côtoyé je sais que Sambou Bouyagi ak loo ko qui tey ci wàllum presse que ça soit Sambou Bouyagi que ça soit Bakary Sissé que ça soit Bakary Sissé grand yi ma xam la hmm. grand yoo xamante côtoyé naa leen ok c'est clair. Bakary Cissé qui est aujourd'hui le conseiller de Sadio Mané te mu nekk ci euh, euh, euh, association de la presse sportive xam naa ko ñoom sa mbubb yaa gi ay grand yi ma xam la. Hmm. moo tax la ko mérité n'ako. Alors, c'est clair. C'est clair. Euh, merci beaucoup. Nous les Donc, c'est les nouvelles nominations euh, du président Bassirou Diomaye Diakhar Alors, donc, Tafa, on a bien circulaire pour l'envoyer, son communé,